Médina Sarr bokk ci quartier yi gën a mag ci Touba askan wa fay yeewoo mag ndaw góor ak jigéen fasantikoo ci ay association wala ay mbootaayu jigéen ñoom ñépp nag jóg nañu boole seen doole ak seen xel ak seen xalaat bootu ci ginnaaw Serigne Khadim Gueye mi nekk ci bopp mouvement ànd soqali suñ gox li lépp nag mu ngi koy def ngir nag bokk ci ñi nga xam ne ni ñooy falaat président Macky Sall ci jongante yi ñuy dëgmal waaye mu ngi koy jaare ci kii di première dame Marème Faye Sall. nekk ci biir Sénégal première fois président de la république Macky Sall soxnaam doon sénégalais comme moom ma gis ay vidéo muy dugg ci biir sancaan yu néew doole di leen jàppale di leen dooleel te muy jigéen ma xam ne kii jigéen ju baax la xëy na ku ko tàllal loxo ànd ak moom ci lépp lu muy def social ñor ko ñor ma ci biir gox bi ma nekk li ma bëgg ci biir gox bi yépp danaa ko am man dama créer sama mouvement bopp ànd suqali suñu gox waa koñ bii nag laa ko tàmbalee waaye mbooleem carte yi si biir Touba yëpp fu ma fi dem si sancaan lu ma leen mën a jàppale danaa leen ko jàppale fu ma si gis ay néew ju doole lu ma leen mën a jàppale danaa leen ko jàppale si kaw ma am moyen yi si kaw ñu dooleel ma si kaw ñu jox ma sama cër jox ma sama wàccuwaay sama jigéen ñii ma amit jigéeni Touba lan ñu am jom ñu bëgg lu baax te du ñëpp a jàng day am ñoo xamante si ne bu ñu jàngul nga bëgg leen dugal si yeneen débat day metti jigéen boo ko bëggee jàppale da koy xool si la mu nekk nga fekk ko sa dimbale ko sa ba ëllëg ak si biir mu xam ne yow dimbali nga ko sama jigéen ñi ma àndal yépp nag ak mbootaay yi kenn ku si nekk fas naa yéene jël engagement si kaw ñu dooleel ma si kaw ñu jox ma ay moyen si kaw ñu jàppale ma bu baax a baax ma jàppale leen ba lépp lu leen naqari woon si responsable politique yi nekk si Touba lépp lu leen naqari woon si politique gu Touba lépp lu leen naqari woon ci seenu dund mu neex leen sama jëmm ji. ngir fësal ak firndeel seen jàppale ginnaaw bi ñu joxee seen kàddu ak seen baat ki nga xam ne moo di Serigne Khadim Gueye ngir mu jàppale Macky Sall ci élection yi ñuy dëgmal askan wa yeewoo ca Mérina Sarr fàttewuñu benn yoon wax li nga ne ni moom la quartier ba soxla bokk na ci nag ay financement yoo xam ne nii soxna yi ittewoo nañ ko ak ndaw ñi ngir mën a liggéey ak lu ci mel ni ndox ak courant waaye leen gën a itteel mooy àggale leen seen jumaay ji nga xam ne nii bañ ko tàmbalee ak léegi ab diir la. suñ yu bari lañ mbootaay yu toq lañ duñ benn duñ ñaar duñ ñett duñ ñeent ay mbootaay mbootaay koñ bi kenn ñëw fi nag ñu ngi ci xaadim rek xaadim rek la ñuy xaar ba xaadim nekk soobu nga rek ñu ngi ci ndaxte koñ bi lu fi jot ñëw ak si néew ak kon fi jot teg bët rek xaadim mii gisuñu fi kenn ku dul moom fu mu joxoñ la ñuy joxoñ fu mu joxoñ ci doon fa joxoñ fu ñu dóor loo ñu dóor fu ñu bàyyi loo ñu bàyyi ku ànd ak xaadim rek ànd na noo geew ma première dame bi nga xamante ne si moom la xaadim jóg pour ànd ak moom première dame mi xaadim di àndal moom la ñuy àndal ñun xamuñu kenn ku dul xaadim ku ñu xaadim ne àndal moom rek moom la ñuy àndal te ñun xamuñuy nax xamuñu ay war dëggu rek lan xam bëgg ku ñu jàppale ndax suñ jàkka ji amuñu lu dul moom suñ jumaa ji Cheikh Ibrahima Sarr moom ko amuñu lu dul moom bu nu sañoon ñu jàppale ñu ci ndax penc mu toll ne na saar ñi boot ci moom ak ñi ko yaakaar bari bay ba a dee te amuñu kenn ku ñëw jàppale ñu ci suñ jumaa ji ak ay làmp jumaa ji ak li ko wër Medina Sarr bi Medina Sarr jeex juróom-ñaari pata làmp fi am ci ab dëkk ak li boot ci moom lépp juróom-ñaari pata làmp fi ne kon xam nga ne soxla nañ courant ndox waxaale wu ma première dame man ci li ma gën a engagé wu ci li xaadim engagé wu pour ñu mu jàpp lañ ci ak li jigéen ñi soxla jàpp lañ ci suñ mbootaay yi ban mën a dem mën a dëgër am tànk yuñ taxawe jàpp lañ ci suñ jumaa ji ay association yu bari seen njiit yi am na ñu ñëw am na ñu ñëwul waaye ñëpp ñu ngi ci ginnaawam ku ne ko jàppaleel dimbaleel ñu ko comme mu taxaw gox bi comme ni ko bëggee. gox bi moom xaadim lañ gis mooy dem mooy ñëw di doom joxaan dafa juddoo yaroo fi yaakaar borom penc bi jigéen demut mag demut moom mooy dem di ñëw rek sëñ bi na ma nag ne yéen ñi fi nekk di mag na ko jàppale te xam ne li muy dox maa ko maa ngi ko ñaanal mu am ci ndam kon lu mën a lu ñu ndax lii sax mënewuñ ko noonu waaye ñun xam ne xam li muy def. li gënoon a jafe jamono yi wut ay danteeg fu ne waaye defee dem fexe na ba indi fii dante ñuy defar dante ba ñaam fi ay bis yu bëree bëri bëri gox yëpp am dante xam nga loolu ak ndimbal la te loolu yombul ña ngi ko cay sant bu baax a baax a baax a baax kon daal kii muy ja àndal na xam ne kii am na mbooloo am na gannaaw te moom ñun ñëpp jàpp ànd na moom jàppale ko te lim fi mu jëm lañ jëm fu ñu jëm nag du fa du fa mën a jëm. li gën a ittoo moom jàkka ji moom mooy li ñu gën a ñor moom. carnet yi ko tàmbaloon ci ñaar fukki dërëm lu waaye man fanweeri dërëm ñeen fukki dërëm téeméer maa ngi carnet yi ba mu agsi mu agsi kon lu nu jàkk ji ñor ku ñu mën a jàppale daal soxla wu nu mbubu soxla wu nu tubay jàkk ji lañ soxla Serigne nekk ci bopp mouvement ànd soqali suñ gox lépp nag mu ngi koy def ci ay propre moyen mosu cee ànd wala mu am ci dimbalub kenn koy responsable politique bu fare fii ci Touba waaye nag li wér wër mooy loxo bi mu tàllal président Macky Sall jaareel ko ci soxnaam première dame Marème Faye Sall bu fekkee wuy si nañu ab wooteem am na yaakaar bu baax a baax mu bokk ci ñiy tabaat njiitu réew mi ci élection yi ñuy dëgmal ngoonuk 24 février 2019. bi mu ñëwee ne ma daal dama bëggoon am na ku ma dee ne ma daal bëgg nañ nga jàppale président Macky Sall bëgg nañ nga jàppale soxnaam Ajaratu Marème fay Sall laa ne ko nag togg gi ñor na booy togg dara nag ba mu ñor da nga ko yekk mm-hmm. kon jàppale Marème Faye Sall ajaratu Marème fay sal di première daam kon léegi jot na te suñ xaadim moom ku ko jàppale macha allah bërigo la ci mbartal ku ko jàppale dana dem incha allahu taala. rabbi si kàttanu sunu borom man ku ma mas a àndal am nga ndam man Cheikh Mbacke Baara xam na ma Aji xam na ma mën naa la limal limal Assane Mbacke xam na ma ñeneen ñeneen ak ñeneen ku ma mas a àndal am nga ndam ku ma mas a àndal rek. si na sunu borom président yàgg naa bëgg ndam fii si Touba si kàttanu sunu borom ñi ko fi nekkal bu nu ma dooleelee jàppale ma soutenir ma si bépp fànn si bépp moyen si kàttanu sunu borom barkeb Cheikh Ibrahima Sarr Diagne premier tour lay jël ma lay jël victoire.